li mu doon wax mooy il faut travailler toujours travailler beaucoup travailler le président Macky Sall la partie avant la patrie. Euh, un gouvernement avant la. la partie voilà effectivement un gouvernement sobre et vertueux ñu ñëw si Bassirou Diomaye Diakhar Faye lu mu ñuy wax jub jubal jubbanti alors que après bu ñu demee ba ci biir li ñuy gis c'est loin de là. Euh, ñi nga tudd ñëpp ñoom personnellement volonté boobu lañu am. maître Abdoulaye Wade il faut travailler toujours travailler encore travailler ñi ko jege xam nañu ni daanaka moo daan njëkk ca biroom moo fa daan mujj te daanaka repos sax daaw ko daaw ko jël daka defaroon boppam mais est-ce que ji nekk ci ginnaaw dañuy suivre c'est ça l'interrogation la patrie avant le parti boobu man duma ci sori parce que fi ñu mujjee gis nañu ko le président Bassirou Diomaye Faye ñëw indi moom tamit slogan wala man du ma ko woowee slogan sax mais volonté politique ne ni man lii laa bëgg a def ku ci nekk di nga ñëw avec say ambition au plan politique ne ni je veux euh, ci lu jëm ci ni ma bëgg a doxalee na ma ñëpp topp ci nii ma ko bëgg a doxalee mais xam nga loolu lan mooy doon li koy li koy sabab pour mu bañ a am une courte vie comme ni ñu bindee ci l'observateur euh, mooy comme ni ñu def nii par exemple avec le séminaire gouvernemental mais surtout avec les arrêtés les notes de service yi nga xam ne maa ngi gis euh, euh, ñu koy ñu koy génne fan yi donte sa entre parenthèses am na yoo xam ne waruñu ko fësal mën na yem seen biir mais yu ñuy génnee quand le premier ministre enjoint ses ministres ku ci nekk na fexe ba lii nga xamee ni moom le président bëgg ci lu jëm ci ponctualité ci lu jëm ci abnégation lu jëm ci sérieux au travail mais ci biir service yi lañ koy defee quand le président de la république a une volonté jub jubal jubanti moom mën na jub di jéem a jubal pour jubanti également mais pour loolu mu mën a am faw ñi ci ginnaawam ñëpp ba ci ki gën a ndekk ci suuf ci administration mën a appliquer loolu bu boobaa ce ne sera plus un slogan creux creux wala un truc qui ne comme euh, l'observateur nuñ ko bind mais day fekk loo xamee ni man sénégalais bi maa dul nangu tey euh, ku ànd ak président Bassirou Diomaye Faye Ousmane Sonko et son gouvernement ak ñu topp si ñu seen ginnaaw ñu def leneen lu mooy jub jubal ak jubanti boobu c'est-à-dire que euh, Pape Ibrahima mu ngi koy wax léegi ba ci mbirum corruption man sénégalais bi lambda inconnu su ma demee ci tali bi tey man maa dul nangu doon corrupteur ci policier bi walla gendarme bi parce que damay jàpp ni jub jubal jubanti boobu moom lañ ñu sant moom la ñu wax ne ni nañ ci nañ ci ngooy donc man ci lu néew li ma ci mën man xamu may lan mooy ki ma jàkkaarloon mën naa ko jéem a jubbante ci won ko ni man duma la corrompre bu dee da nga ma war a attester parce que yore naa oto waaye Euh, peut-être takkuma ceinture wala euh, sama oto am na lu ci gàllankoor wala leneen mhm. attesté ma jox ma sama kayit bu ma waree dem fey six mille ba neuf mille ba douze mois ma dem fay ko mais pour wala ni yow mi nga xamee ni yow yaa ma war a defal loolu ni man duma la may fooy fooy ñàkkee jub dinaa la jubbanti à ma manière en contribuant ci li président bëgg parce que gis nga war a toll ci benn moment boo xam ne faut extirper la chose politique naa ni non c'est euh, opposition moom moo donc man je vais m'opposer non il s'agit de refaire le Sénégal mais chacun am nga sa contribution j'attends pas que le président Bassirou Diomaye Faye ou le premier ministre Ousmane Sonko ou les membres du gouvernement demandent quelque chose mais war naa ko jël def ko sama sama yëfu bopp sama sama sama dund bopp mais loolu yëpp ci yar lay doon mais tey euh, les slogans yu ñu wax naa ni bon day gàtt ñun sénégalais de manière générale ñun ñoo ko mën fexe ba mu gudd ba mu yàgg ba même président ci boppam bu bëggoon a jàdd ci slogan moom ñu fàttali ko ne ko yaa waxoon nangam ak nangam ak nangam je pense c'est ça le le plus important aujourd'hui waaw suñu njiit yooyu lan la ñu war a mën a jàpp di moom moo